Mamour Dieng euh, coordonnateur adjoint Pastef Diourbel également membre de la coalition Diomaye Président population bi dañu déchargé ci benn poids boo xamante ni képp ku nekk fii rek ak ñi fi nekkut yaa ngi doon dox di dundaale ak pois boobu ci sa bopp ñi mu def leen stress ñi mu tere leen nelaw ñi mu feebar leen ñi mu indi leen handicap ñii jël ci seen ñàkk ci seen liggéey ñenn ñi également seen bakkan des ci ba tey ñu agsi fii depuis deux mille vingt deux mille dix neuf ba léegi mais mën naa ne bu ñu waxee deux mille vingt peut dafa gën a empiré wu foofu avec l'événement Covid dix neuf jaar fi et toutes les circonstances yi nga xamante ni accompagné na Covid boobu noonu duñ ci attardé wu sinon dañuy jël trop de temps. mais <clears throat> juste pour dire que rek ne boobu ba léegi ku ci nekk boo xëyee boo defee benn analyse ci situation politique Sénégal da ngay am le kër brisé pour ne pas dire le cœur meurtrier mu metti lool ba yàlla dogal ñu agsi fii tey mais wolof doon léeb naan lu tëgg tas wolof léebaat ne loo muñ mu jeex tubaab naan tout arrive à point pour ceux qui savent attendre tey on est au point kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax nag ne di lancer un appel donte ci lañ bokk waaye du tax ñuy jël position partisane dañu nekk dañu traversé moment yoo xamante ni c'était des duur ñuy opposé wu di dénigrer di politique ba yàlla dogal tey population bi am ci coalition bi yaakaar jox leen réew mi kon message bu message bu may lancé la coalition Diomaye et le président son excellence monsieur le président Diomaye fay Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko wax ne ak ñi mu àndal ñëpp nekkutuñu ci moment politique mais dañu jublu ci moment liggéey kon nañu mettre à côté tout ce qui politique ñu mettre ko à côté ba échange agsi ñu soog a jubluwaat ci loolu ca ñamu war ña nga xam ne liggéey leen war nañu ca jublu bu liggéey jotee naam gouvernement taxawagut waaye nag wolof da doon faral di wax na mbir day am fu muy toll ku artuwut da nga mujj atte moo tax ñun nag danañ teel a artu le président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement ba war a ñëw ak ña ca yore ay responsable ñu xam ne ci liggéey lañ leen di xaar ci conditions yu favorable lañ leen di xaar ci meilleure condition de vie lañ leen di xaar kon message boobu noonu dinaa ko jàllale waale quitte à ce que ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu yaakaar ba jox leen réew mi ñu xam ne lii moo tax ñu jox leen réew mi fo taxut poosu bopp taxut recasement politique taxut leneen ak leneen yu mel noonu taxut mais liggéey changer Sénégal moo tax ñu wóolu leen ba jox leen réew mi ndaxte dafa am benn nouvelle prise de conscience boo xamante ni moo fi am képp ku fi nekk liggéey ngir Sénégal dinañ ànd ak yow ci loolu waaye képp ku fi nekk def leneen lu dul liggéey wala lu bokkut ak li Sénégalais yi doon xaar dinañ rester nekk ay observateur analyser mbir mi mais nag lu ci mën am toujours ñun nous allons ranger au côté du peuple wala man personnellement man toujours ci côté peuple bi laay féete moo xam nag président féete ak peuple bi gouvernement féete ak peuple bi wala mu bañ a féete ak peuple bi waaye suñu jëmmi bopp yii ñun toujours dinañ jël défense taxaw ci wetu peuple bi fexe di xam seen i bëgg-bëgg fexe di xam seen soxla fexe di xam seen i problème ngir trouver ay solution ci loolu